benn waxambaane la woon bu doon jànge université ci bisu talaata ñu wax ko ne ko sa papa dafa feebar ba sonn lool àllarba bi nga xam ne si ne moo ci topp moom waxambaane wi ci la war a examen te papa ji feebar na lool papa ji ne ko yow sama Dom, dama bëgg ñu ànd ñu dem hôpital ma seet sama yaram wi doom ji ne ko papa man de maa ngi ci say ndigal loo bëgg ci laa nekk ànd ak bàyyi ji dem ci hôpital mu jël ay téeréem yi nga xam ne moom la war a jànge ngir préparer examen yi mu war a def suba bi mu demee médecin bi xool papa ji woo doom ji ne ko ah sa papa il faut mu fanaan fi tey ndax yaram bi faw ñu xool ko mbaxam loolu ba pare mu d'accord ak médecin bi mu jël ay leçons yi nga xam ne si ni moom la war a jànge ngir préparer imtixaan bi muy examen bi mu war a def suba toog ci wetu way jur wi di xool ay leçons ngi toog ci wetu baayam di yor ay téereem di jàng biñ demee ba fukki waxtu ju guddi baay ji daal di nelaw doom ji moom bëgg a profitoo xool ay leçon far nelaw dab ko ci wetu papaam toog foofu di nelaw bi mu demee ba nga xam ne si waxtu fajar jot na moom xale bi daal di julli daal di yee papa ji waaye docteur bi joxoon na ko ay comprimé ne ko su fajaree na ko ko jox ngir mu naan ko. ci suba jotee moom doom ji war a xëy dem école ngir war a def examen yooyu te li mu jàngagoon ci ay leçon bareegut li des ci waxtu wi gën waxtu la mu ñëw ci baayam mi ci lalu hôpital bi mu yëkkati loxoom ne ko ñaanal ma yàlla yàlla may ma ndam ci examen yi may jëm baayam yëkkati loxoom jëmale ko asamaan ñaan yàlla yàlla yàlla nga may sama doom ji ndam ci examen yi mi jëm. agsi na ci école bi ba docteur bi séddale këyit yi nga xam ne ci la laaj yi nekk laaj yi tollook juróom-benn fukki laaj moom mu bind lam xam mu tontuwu ca lu dul juróom-ñeenti laaj ci juróom-benn fukki laaj yooyu. bi ñu xëyee suba ñu déclaré ne seen not yi génn na moom xale boobu waxambaane boobu bokk na ci ñi nga xam ne si ne am na not bu baax am na li ñuy wax vingt sur vingt mu jaaxle lool. ndax juróom benn fukki laaj lañ ko joxoon mu tontu ca juróom-ñeenti laaj mu ne kat lii jaaxal na ma xaaral ma ñëw seeti docteur bi laaj ko ba xam lii naka la mën a demee nii. ñëwee ba agsi ci docteur bi docteur bi ne ko félicitation am nga not bu baax xale bi ne ko man de damaa gis lu ma jaaxal ci sama not yi damaa gis ma am note bu baax te liñ ma joxoon ci ay question tontuwuma lépp. xale bi daal jaaxle daan ne man daraja bii naka laa ko mën a amee docteur bi daal di jël kayit yi di ko wirifeewaat bi mu xoolee kayit yi nag moom xool na kayit yëpp waaye gisu ci ki nga xam ne si mooy turu xale boobu docteur bi daal di toog xalaat ndeke bi mu corrigé kayit yi am na benn kayit bu doon naaw noonu ndeke kayit boobu doon naaw kayitu xale boobu la moo tax mu ne ko bëggumaatoon kenn moo tax ma may la daraja bi nga am ni amana suñu borom subhanahu wa taala daf la bëggona téral teral bi daali muñ docteur bi laaj ko lutax mu muñ mu netalé ko li nga xamné mo xewon ci hôpital ba mok papam dembu ci guddii nak xalé bi tay liko may daraja bi muy ñaanug way jur kon mangle ngi lay denk di denk sama bop na ngay wakkirlu ci yalla fonk sa ñaari way jur bayek sa bop sa borom ndax yalla neena kep ko xamne da nga wakir lu ci yalla yalla suñu borom doy kon ma ngi lay denk di denk sama bop ñu fonk suñu ñaari way jur ki doon def video bi señ bok señ Mbacke gay wassalamu alaykum wa rahmatullah